Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Dale, arre, dale. Ay, jël leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko. Non, bàyyi leen ko. Jël leen, bàyyi leen ko. Ay, jël. Ay, jël. Ay, jël. Non, mbokk yi lépp dina ko jar le préfet de Dakar gis ngeen ko ñëw na ànd ak le préfet de protocole di président Ousmane Sonko fu ñu dem wax mbokk yi yéen a ko gisoon le cortège du président Ousmane Sonko a été attaqué par la gendarmerie alors que c'était un cortège pacifique. Waaw waaw waaw waaw waaw voilà lii la gars yi war a jël en Wow, déedéet maa ngi ñu ñuy sétane rek. bu ko defé ngeen xam ne dañ ñoo dóor ay lacrymogène xamé xàmmeetuñ won kenn en ce moment ñoo ngi dund ay violence yo xamantene kenn xamul lu mu doon yo ko gisando lolu mo waral man ak sama ki nga xamantene modi sama cameraman bi di jël live bi ñu réeroo won ñu réeroo won waye ñoo ngi nii ak ñi nga xamantene ñoy tak der yi ndaw ñi ñi ngi jakarlo ak ñom tak der yi bak ñoy imposer yoon wu ñuy jaar mais ndaw ñi nenañu lolu ñom duñu ko naw ndaw ñi nenañ ñom lolu duñu ko nangu ndaw ñi nee nañ ñoom loolu duñu ko nangu fi mu ne nii dañoo ñoo bëgg a imposer fu ñuy jaar maanaam li ñuy éviter rek li ñuy éviter rek mooy fexe ba Ousmane Sonko bañ a jaar lépp loo xamante ne xaw na jege université ngallaawaay lii kenn mësu koo gis ngallaawaay kenn mësul a gis nit koo xamante ne dañ laa ko képp ñu ne la nii ngay jaar ñu ne la looloo fa jaar jaay la doole sànni la lacrymogène gaañ say ñoñ tey lii la Ousmane Sonko di subir. tey lii mooy li nga xamante ne moom la Ousmane Sonko di subir ñoo ko gisandoo police mi ngi door ay lacrymogène police mi ngi gaañ ndaw ñi police mi ngi leen di jaay doole lii yëpp nag sous le magistère du de de Sall lii yëpp nag ci pouvoiru Macky sàll lii yëpp ci pouvoiru Macky Sall ma d'ailleurs ana organisation internationale yi ana organisation yi nga xamante ne ñoo ngi wax ci wàllum. ana organisation internationale yi ana organisation yi nga xamante ne ñoo ngi wax ci wàllu droits humains ana ana ñoo tey jii nii seetlu nañ ko ñoo ngi sànni ay lacrymogène may laajte rek ana organisation yi nga xamante ne tey jii nii ñoom ñooy wax ci wàllu droits humains ana organisation yi nga xamante ne tey jii nii li leen ñor nee nañ yéeyaay mooy nit ñi am jàmm tey li ñu seetlu mooy fii jàmm amu fi te jàmm gi léegi ñu ko xañ mooy Ousmane Sonko mu bëgg dem wuy ji képp ñu koy jaay doole jàmm gi li ñu mooy Ousmane Sonko tey jii nii ci flemme lacrymogène yi yi nga xamante ne ñu ngi ñu koy dóor ñu ñu koy dóor wax dëgg neex yàlla lii doy na waar trop trop trop trop trop te mooy li fi am moo tax may laajte rek ana organisation yi nga xam ne la gendarmerie état nombre bi dafa

running off. Bakın dedim ben ne kadar. Bakın ne kadar okumuş. Ha? Elavin! Elavin! Elavin! gendarmerie mi ngi avancer ñoko gissando tay jini jii nii nañ yoon bi dafa melni li ñu bëgg moy ñew jël ki nga xamné modi di président Ousmane Sonko dafa melni baré baare nañ yoon yëpp kinga nañ ki nga xamné modi di président Ousmane Sonko tay jini nii Sonko mënatu la dem mënatu la arrière ñu dóor ay lacrymogène du ñu jaay doole ndaw ñëpp ñu ngi gis lii waaye amuñu pexe parce que Ousmane Sonko moo leen ko jaral tey jii nii lii mooy li nga xam ne moo am fay fii ci Mermoz tey mercredi 3 mars 2021 président Ousmane Sonko di président Pastef di honorable député di élu du peuple li ko ñor mooy senegal ñu mu jàkkaar loolu ne ko di fa amee di ko jaay doole fi mu bëgg jaar ñu ne ko doo fa jaar ndaw ñi mu àndal ñu koy xoqañal ndaw ñi mu àndal nga xam ne ñoo ngi leen def ñu ngi leen di teg violence presse bi ñu ngi dund violence boo xamante ne kenn mësu koo gis tey jii nañ yoon yëpp Ousmane Sonko fi mu ne nii quadrillé nañ ko des en ouest du nord au sud toutes les tous les quatre coins yi nga xamante ne fa la Ousmane Sonko mën a jaar tëj nañ ko lan la ñu bëgg lan la ñu nam ci koo xamante ne dañ ko woo mu ne day wuy ji bëgg a jaar yoon waa xamante ne fa bëgg a jaar ñu ne ko di amee lii tey jii nii mooy li nga xamante ne moo am ci Sénégal am na yeneen ñaari oto bit yoo xamante ne ñu ngi ci euh, derrière la voiture du président fees dell ak ay takk der gis nañ ne itam lii daal mooy li nga xamante ne moo fi nekk tey jii nii ñu nekk ci kanam aussi nekk embuscade lu ñu namm xamaguñu ko waaye leer nañu ne tey jii nii ñii am nañu lu ñu namm lii daal mooy li nga xamante ne moo am Sénégal il faudrait que organisation internationale yi xam ko. képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci organisation internationale tey jii nii lii mënoo koo rafetlu képp koo xamante ne yaa ngi liggéey tey jii nii ci lépp loo xamante ne nee nga jàmm nga bëgg ci àdduna bi lii yow bu dee foo ci mbir mii xam nga ne lii war nga ko jël génn lu ko parce que lii du dëgg du yoon waa GIGN ñu ngi noonu ñoom it agsi nañu ñëw bokk si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa gendarmerie ànd ak ki nga xamante moo di commandant bi lii yëpp pour jaay ñu doole. ñu ànd ak yéen sax wan leen li nga xamante ne tey jii nii moo fi am ak échange yi nga xamante ne kii ñu gaañ di chef de protocole bu Ousmane Sonko tey jii nii mi ngi koy waxtaan ak ñi nga